waa gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaar yéen ñuy suivre ma sport tey nag ñu war a ñëw ci benn match boo xam ne am na ci diggante Arsenal ak France vainqueur bi nag Argentine la mooy champion du monde war wax tamit ci Lionel Messi nga xam ne toj na match bi nekk nag meilleur joueur coupe du monde bi war nekk meilleur joueur monde bi dañu ci yaakaar bu baax a baax après yow seen góol bi nga xam ne mooy meilleur gardien meilleur góol du monde kat ay ay présentation yu am solo yoo xamante bi ne képp kuy suivre football vraiment da nga am sama fierté bu baax a baax wa Argentine nak laata loolu nag ñu ngi ci page bi ngeen abonné te ngeen bëgg ko notification pour ngeen fi vidéo taaral te Argentine nak vraiment waneete na man ma équipe mag bi waneete na ma yor bi mag ci monde bi waneete na xarañteefam waneete na mentalam mag bi neena na Argentine dóor équipe bi nga xam moy mooy France 2-0 France dama dañu bi mbappe Mbappé égalisé ci biir penalty égalisé ci benn frappe benen frappe ñu dem pour prolongation Argentine duwaay benen bi mi 3-2 Messi ñu ma dernier temps du ba dernier minute Mbappé égalisé waat mooy 3-3 ñu dem tiro bi loolu yaakaar na équipe bu mental doo ko def waaw gaynde gaa ngi noonu meilleur joueur baa ngi noonu trophée baa ngi noonu mu téye di fóon coupe du monde bi muy Lionel Messi kon coupe du monde 2022 mooy meilleur du monde 2010 moo nekkoon meilleur bi quel quel quel joueur Messi nekk champion du monde avec. Euh, euh, Euh, set euh, bii set bii vraiment dougal na pas, trois ne bokk ci à part Mbappé faire de 3 kon vraiment Messi na man-manam ako kon gars nañ ñu def euh, bu mais vraiment France quelle équipe quelle équipe France équipe bo xamné tay buñu wonone fayda ak engagement duñu égaliser Ah, ñëpp donc kii ñëw match a Argentine ba égaliser ba ci ne bii na ah na mais de mérité wul vraiment mérité wul na gañaa comme ni ko Argentine gañaa ndax tiro bii la xam ne liggéey bi des na liggéey bi des na bu baax ci tiro bii daañu ci ñëw na ci kanam kanam Messi nag ñu noonu ak trophée yu gañaa soo xool Messi gañaa na 4 Ligue des Champions 4 Ligue des Champions gagnant une super coupe gagnant benn coupe du monde gagnant un championnat gagnant 7 ballons d'or gagnant trois coupe du monde des clubs Il y a na kii bi ko doon lim feeñu fanaan kon Messi je le vois xam vraiment vraiment vraiment vraiment toujours day wane man meilleur joueur la toujours day wane dans ma man li may te du ma ci ragal du ma ci arrière kon gars yi métti daal wan na ne monde bi képp kuy takk daal instant yi moo la rawagun meilleur joueur tous les temps man na am nag Mbappé wala keneen ëllëg def ñu def wala lu mel noonu mais du yomb du yomb sept balo d'or sept soulier d'or ah deux fois meilleur joueur coupe du monde ah nekk finale deux fois coupe du monde jël ko benn yoon bëri ji la am ci jour nekk ah, champion d'Amérique benn yoon. vraiment ku mu jël bari na bari na ci surtout ci fin de carrière bi surtout ci fin de bi kon daal Messi mi ngi noonu euh, yëm na ñëpp mais même daf daal ñëpp da ku ko defaat yomb te yaakaaruñu ko ñu ngi yaakaar ba léegi ba door ren bi moo ko war a jël bu France jëlee championnat bi xam ngeen ne Ligue champion France bu jege demi-finale rek euh, Paris daay wax Paris euh, dina nekk Messi du neex a gërë ci ba door bi waaw boo xamante ne bii na Messi wane na man maa fi nekk wane na man jour mënuma toujours damay répondre présent

mais nag Mbappé tamit mm, euh, demertuwul mën na nekk meilleur joueur ndax football na dox na vraiment grand joueur la grand joueur la waaw grand joueur la boo xamante ne bii na euh, toujours rek xale la mais mi ngi sagal France mi ngi wane ma ninam ñi ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax waaw góol baa ngi noonu nag góol Argentine bi vraiment quel arrêt quel arrêt mën nañu wax bal bi mi ngi amoon presque ci fin temps bu jugoon a temps bi di jeex góol bi arrêté ko mental la boobu ba léegi mooy répondre bi yóbbu leen bi génnee xawma 3 vraiment vraiment euh, góol bi tey mën nañoo wax ne moo gën a Argentine bi mën nañoo wax ne Barça jëlee ko du monde da cee am impact bu rëy rëy kon gars yi merci beaucoup loolu moo doon jàngat bi ak commentaire bi wéen di abonné di commentaire di partager di liker ngeen xaar ñu suñu yenn numéro suñu vidéo balaa minuit jàpp 22h de h dañu indaal yi benn vidéo boo xam ne analyse spéciale ci match bi nu ko France égalisé Argentine yeneen fayal def ba France dañ ñëw tamit ah, ci analyse yu am solo ci Mbappé ëllëg carrière am ak Mbappé li mu def ci histoire football ndax lan la war a mën a liggéeyaat ba raw Messi wala toll Messi toll mën nañu wax Mbappé mental bu baax rek fexe jël ay ballon moo tax rek mais bokk na ci meilleur joueur pare merci beaucoup sama gars yi.